mbokk internet yu Dakar Net ginnaaw bu ñu leen nuyoo jaale mbokki euh, Pastef yi rawatina ñaari ndaw yi nga xamante ni ñàkk seen bakkan ak ñeent ñi nga xamante ni ñu nga ca bërëb bu sawataas ya waaye ki nga xamante ni mooy wuyoo ci turu El Hadj Malick Ndiaye ba futti ci nguuru Sénégal rawatina président Macky Sall ndax nee na ba ñuy attaqué seen njiit bii di usmaan Sonko fële ci aéroport ba force de l'ordre ña ngay taxaw di seetaan dem di escorter ab politicien mineur di yoo ci Doudou Ka lii di di lu doy waar yéen a ko gis noonu ci photo Ousmane Sonko ànd ak ay junni doomu aadama te amul benn force de l'ordre boo xamante ni ñëw na di wattu kaaraangeem moom nag nee na dafay dëggal moom El Hadj Ndiaye ki nga xamante ni moom mooy Guy Marius ginnaaw bi mu waxee ni ki nga xamante ni moom mooy uh, Ousmane Sonko lépp lu ko dal loxo président Macky Sall génn ci uh, fii ba 2024 way leen di abonné seen site d'information bii di Dakar Net du